ginnaaw ba ma leen masawoo coono euh, je pense que ni kàddu yi du gudd parce que li ñu war a wax yëpp ñoom ñii di ko dund wax nañ ko. Mm-hmm. vraiment li ñu war a wax problème yi fi am yëpp ñi fi jël kàddu ñëpp wax nañ ko léegi nag ñun li ñuy def mooy comme niñ ko defee fépp lancer un appel aux autorités ñoom nañ xam ni askan bi ñoo leen fal nañ xam ne li ñuy fonctionner si marché yi la jóge muy marché central ak marché ngelaw ak marché yi nekk zone nord. kon ñooñu lu ñu moom as boo leen ko mënta delloo nga jox ñu suñuy suñuy suñu ndomb tànk nga dem. parce que man bi ma dalee dégg problème marché ngelaw bi ma fi mujj ça fait plus de trois mois ñëw ñu wax ma problème bi wax problème mu mbalit bi boo demee ba marché maire mënu faa teg poubelle u mbalit. wala oto mbalit boo xam ne day jël parce que marché ku wax marché xam ne déchet dafay am kon kooku lan lan ngay doyee lan nga boo nee mën naa gérer gox wala mën naa lijjanti lii mën naa lijjanti non non da ngay nax nit ñi ku mënta régler problème mu mbalit ci marché nan nga mën a régler problème askan bi non mën nga régler sa problème bopp ak problème ñi nga ñi nga ñi nga ñi nga àndal ñun nag ay citoyen lañ juddoo Thiès Nord màggee fi yaroo fi pépp fu ñu gis problème dinañ taxaw dénoncé ko wax ko maire lu mu xam ni compétence la mun ko gérer dinañ ko wax parce que marché yi ñoom ñoo koy gérer mbalit ji ñoom ñoo koy gérer éclairage public bi ngeen wax maire yi moo koy gérer parce que waratuñoo toog jamono ji ñu toll ñu naan marché yi dafa lëndëm insécurité mi ngi fa. seen ni bagage ngeen di tëj si boutique yi ngeen di dem ñi ngeen di jël gardien yi bu ñu amul sécurité mu am lëndëm gars yi naka ñuy def naka su dul noonu mën nañ fee ñëw def naka su dul noonu. man nag j'étais écœuré bi ma duggee si biir marché ngelaw bi gis nga am na yoo xam ne sax dafa weesu léegi si marché moderne. tey nii ngay toog court circuit mën na fee am. bu fi amee maara day taal. ay mbaar ñoo fa ne bant yu dëgëragul dara lu dëgëragul maanaam sept ans munoo am sax projet benn projet bu wóor pour teg ko ne pour benn marché wala dara te sept ans yi géré nga fi budget boo xam ne c'est plus de deux milliards. maanaam yow munoo teg sax benn projet jóg si benn marché ne dama bëgg a teg projet bii pour soqali ko nga ñëw fii dugg suñu yaay yi si biir ndox mi lañ ne mënuñoo bañ a toog. lal lal lal seen kii c'est grand koo duggee fi sa xol bi day jeex tàkk day jeex tàkk ñun nag lañ leen di wax. mooy gis nga nit àdduna fi mu toll nii problème yi peuple bi ñoo ko war a fajal seen bopp problème yi yéen a koy fajal seen bopp bu leen bàyyi ba élection jub si élection jub si ñu ñëw fi nax leen génne ay xaalis joxe fi ne voilà lii dinañ defar dinañ defar dinañ defar waxi naxe la gis nga koo jox sept ans mënu defar di la laajaat beneen mandat boo xam cinq ans la day gën a remplir ay poosam parce que après day dem yoonam kon nit ñi nañu yeewu xam li ñuy def bu baax ñu xam ko bu baax poubelle yi ñu wax nag jëndoon naa yàlla def na am na ñoo xam ni ñi def kii ñëw nañ yóbbu ko dinaa jëndaat indi daat lañ ko lamp yi bi ma fi ñëwee lamp yi bi ma fi ñëwee waxoon naa leen ne leen ndax lu wër marché bi am nay làmp ñu ni ma waa pour le moment am na lamp yu ñu fi def mi ngi tàkk jamono jooju waa jamono jooju looloo fi amoon man leen kon baax na lamp ya ma yoroon ma am ñeneen ñu ko soxla woon ma jox leen ko léegi nag comme cité ki waxaat nañ problème mu lamp yi dinaa wutaat ay lamp indi jox leen ni sama poos toll dinaa wut ñëw indi jox loolu moom lu ma leen di wax la leneen li nag moom pour régler problème marché bi am programme spécial pour marché bi bu ñu àggee sa maire ba lañ koy mën. pour mu leer. incha allah le 23 janvier 2022. bu ñu yàlla defee ñu gagné élection locale yi ñuy jëm. Mhm. dinañ am un programme spécial pour le marché Ngelaw de Thiès. loolu moom. loolu moom loolu moom lu leer la yàlla def nañu sànq bi fi duggee maa ngi dem gis maire Adjuma Mbaye mu rappelé ma bi may nekk primaire di nekk xale bu ndaw sama yaay dama fa daan yónni boobu ba léegi da ngay xool marché bi ni mu meloon la melaat loolu rafetul du yoon ak dëkk bi ni muy doxee dañuy xaar ba safaan am ñu doog a ñëw di réagir balaa safaan di am nag nañ leen fi faxas jëlee leen fi fal ñoo xam ne mën na ñëw régler problème maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier ci courage bi ngeen am ba ñëw taxaw Merci.